sëriñ Assane Mbacke bu Pastef ak kile di frère am di sëriñ Abdou Lahat Mbacke moomee nag jamono ji ñuy wax ak yéen dañ leen placé sous mandat de dépôt ba tax na sax ay famille ñu ngi taxaw temb rek di rek daan wax Macky Sall ngir mu bàyyi leen ndax lu jiig njaak rek moom mooy njaak ci noone sax ma ngay ñu jàpp rekk di leen wàcce lay kaamil maanaam di jàng alxuraanu karim ngir rek li lu mel nag tegu seen kaw daal di yomb ba ñu bàyyi leen moomee nag famille bile taxaw nañu temb itam di ñaawlu leneen loo xam ne rek gis nañ ko ndax ba ñu demee foofee di leen seeti ji rek dañoo taxaw lànk carré ñi duñu seet ñooñee nga xam ne rek ñoom la ñu daal di denc rek muy Serigne Assane Mbacke ak kile di Serigne Abdou laxaat Mbacke ma waral nag ñoomee taxaw nañu temb rek diwoo woo bi rawatina njiitu réew mi Macky Sall ngir mu daal di taxaw ci lu ñu mel ba ñoom ñee sax ñu daal leen bàyyi biir euh, famille dañuy àddu rek wax ci lu ñeel nag coalition bi di yeewi askan wi ak mouvement gëm sa bopp ñu ni dañuy taxawal sax ab plateforme rekk daal di koy euh, tuddee nag wax waxeet rekk jëm ci ñetteelu mandat bi lee loolee duñ ko nangu maanaam rek taxaw nañu temb rek ngir xeex ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall ba tax na nag kile di Bougane Gueye Dany tey ji sax daal di nay dalal ñu bare ci organisation bi mu mel ni yeewi askan wi akile di euh, président Habib Sy Cheikh Tidiane Youm bu FRAPP honorable député Guy Marius Sagna Aminata Touré bu mouvement Mimi 2024 LD Debout bu Abdoulaye Bathily ak Mohamed Ndiaye Awale ñoom ñu taxaw temb rekk daal di wuy ji sax kile di Bougane Gueye ginnaaw mbébét bi nga xam ni yàgg na koy am rekk ngir daal di rek euh, baare kile di euh, njiitu réew mi Macky Sall ngir nag mu bañ a am ñetteelu mandat fii ci réew mi jëm ci élection présidentielle yi lee waaye ñoo ngi koy artu rekk ngir mu amal nag ay élection yu jaar yoon comme na mu ca daan demee